aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw buñ sante yàlla sunu borom subhaanahu wa julli ci yonentem bi yeesalaat sunu pas-pas ci seexul xaddim di ñaanal bu baax Cheikh Muntaxa yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ko ñaanal mboolem jëwriñam mi àndal ci toolub seexul xaddim bi wante di nuy bu baax a baax te ziyaare Euh, Serigne Afia bu sayl imam mi nga xamante ni moo jiite liggéey bu sell bi ak mboolem jëwri ñi nga xamante ni moom la ñoom la àndal liggéey bi euh, te mën leen a lim di wax ni tamit ñu ngi ziare bu baax mboolem jëwri ñi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi te ngànk liggéey bi mu ci tuddee euh, Serigne Assane Diop ak sëñ ma fëri ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi wante di ziaraat bu baax a baax a baax waaye daayira mu xaddimatul xidma fi nga xamante ni saa suñ fi tàbbee dañuy amaat yokkute amaat mbégte santaat yàlla bu baax dellu gërëmaat seexul xaddim ci liggéey bi nga xamante ni yàlla sun borom may nañ ñu ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñu ngi ciy nab nabi te gisuñu ju dul ak cant ak ngërëmul Serigne Touba wante di siyaare bu baax tamit barab ban jóge mooy waa daayira Muxaddamatul Xidma bu Mali eh, di ci jiital Cheikh Maam Balla Mbàkke ak soxnaam soxna maam Faati ak euh, jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la ànd liggéey bi rawatina waa kër Serigne Touba gi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bopp liggéey bi euh, buñ ci jiitalee Serigne takku Ndiaye ak mboolem jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ ànd liggéey bi ah euh, ñu ngi santaat bu baax tamit sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ fekk ci jotaay bi tey ñaan yàlla sun borom guddal seen fan te wéral leen te yàggal leen fi lool. te jotaay yi leen di fekk di jotaay Serigne Touba ñu yàgg koo taxawu te lépp dëpp ngërëmul Serigne bi. ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di wax ni rek euh, addiya ji bi mu ñëwee ñun ñoo ko waroon a indi wante ku ne xam na ni lu tollook at ñu ngi nekk Sénégal wante liggéey bi fee lépp mi ngi dox ndax jëwriñ ñeen fa bàyyi mate nañ ko sëkk te saa su nekk tamit pas-pas ban ci amoon bu ko ëpp ñoom lañ ci am nan ko daan taxawee tamit niñ koy taxawee fi ne nii sax moo gën a sell moo gën a passé fi ndax ku ne xam na ni jamono yii réew ma yëngu na bari nay jafe-jafe murid yi ñu ngi ci ay xat-xat wante nag liggéey sëñ Tuubaa du dellu ginnaaw mukk saa su nekk rek dañ dañ pas-pas bi da koy wone kon ñu ngi sàkku kilifa yi ñu ñaanal leen bu baax yàlla yokk seen addiya ndax ñoom kat loolu am liggéey ko sëñ Tuubaa ah, wax na ni seen lépp mën naa takk ba mu des liggéey sëñ Tuubaa kon ñu ngi sàkku bu baax a baax a baax ci barab bu sell bi jëwriñ ya fa nekk des fa di sàkku addiya yàlla suñ borom yombal leen lépp ci barkeb sëriñ bi xam naa dañuy bañ a lim tur yi di guddal wante section yi nga xamante ni ñoo fa ŋànk liggéey bi de ay jàmbaar lool te saa suñ leen waxee liggéey bi ñu def ci luñ man xam naa du ñàkk ñu tudd ci yenn ci ci ci ci ci dëkk yi yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ànd ak ñu liggéey bi foofu te di ay jàmbaar lool te wax dëgg yàlla ni ma ko waxee léegi rek euh, dëkk ba xaw naa bari ay jafe-jafe wante nag saa soo leen woowee ci liggéey bi sëñ Touba lépp luñ jàpp rek dinañ ko bàyyi euh, ñu ci jiital section Toroko Buggu ci jiitalu Serigne Maam Thierno Fall ak euh, Serigne Pape Pape ñoom tamit ñuy ay jàmbaar lool ci liggéey bi mu ca tegee tamit mañaam buggu ak euh, bananka buggu ñoom tamit euh, ci jiital euh, sëñ ma Maburi Aaj ak sëñ maam Corno Seen ak sëñ Moori Seen ñoom tamit di ay jàmbaar yoo xamante ni saa su nekk liggéey bi heure boo leen ko waxee rek loolu jàppoon di dinañ ko bàyyi dox ci wax ci ba liggéey bi mel niñ ko bëggee ñoom tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a baax di sant tamit waa Balada buggu ci jiitalu Serigne euh, Fallou mbay ak Serigne Mor Talla Ndiaye ñoom ay section la bu bees boo xamante ni euh, ren jii lan tàbbi ci liggéey bi wante wane nañ ci pas-pas ak Pastef boo xamante ni kawer na njort lool ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di wax ni daal liggéey bi ñu dajale woon jëmee ko ci jumaay ji yegsi na ba jëwriñ yi jot nañ ci ñu ngi ñaan leen ci yéene muy liggéey Serigne Touba te ngërëmul ci sàkk ngërëmul Serigne bi yàlla leen ko Serigne Touba defal. ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax jëwri ñi nga xamante ni tamit ñoo fa nekk ngànk liggéey bi di ci doxal bu baax ku ci mel ni sëñ maam góor ja ak sëriñ jiili Mbaw ak euh, jëwriñ bi nga xamante ni mooy sëriñ Fàllu Caam ak sëriñ Ali Ndiaye xasida wax dëgg yàlla ñii dañu ay jàmbaar yoo xamante ni euh, ñoom ñoo yor liggéey ba di ci dox saa su nekk saa su nekk tamit guddeeg bëccëg ñu ngi ciy dox luñ man kon ñoom tamit ñu ngi leen di sant bu baax daayir yi nga xamante ni tamit ñoo fa nekk ñoom tamit di yëngu ci liggéey bi ñoom tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax te xam ni addiya ji yëgsi na nin ko doxalee lépp jiwri ñi wax nañ ñu ko kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ki nga xamante ni tamit bi ma ginnaaw ba ma fa jógee moom laa teg liggéey bi ci loxoom euh, moom tamit muy jàmbaar lool ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax liggéey bi muy def am na solo ndax guddeeg bëccëg moom wax na ni bi mu tàbbi ci liggéey bi li mu def mooy sama oto moom def naa ko oto mu daayira Muxaddamatul ma muy Serigne Mbaye caam nga xamante ni fu ñu jëm day wax ni essence bi sax moom moo koy def oto bi daal mi ngi nii caabi jaa ngi nii fu daayira mu xaddimatul xidma jëm ci section yi lu mu sori sori oto baa ngi nii su fekkoon may xëy sax dinaa ko wàcc euh, jox leen ko jël oto dem nga xamante ni mujj na sax moo far moo doon safoor bi fu ni demati daana fu ngeen di dem woo leen ma maa leen di yóbbu maa leen di indi moom moom mooy vice président liggéey bi moom moo ko yore fi mu ne nii di ci dox dox bu am solo sëñ Mbaye Thiam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla suñ borom taw tawféex yi xam naa ni loolu dañ ci doon jottali ci kàddu di ñaan lépp luñ ci euh, dëng rek di ko tuub wante li jub ñu xam ni mbirum sëñ bi la ànd na nag tamit suñu jëwriñ ji di Serigne Ndiaga Niang nga xamante ni euh, liggéey bu am solo la yoroon Mali. Euh, daayira bii nga xamante ni moo sos daayira moo ci la daayira mu xaddimatu xadme bii juddoo muy daayira Zikurla moom mi moo doonoon jëwriñ ja doonoon suñu jëwriñ yore fa liggéey bi bànqaay ci Serigne Touba fa nekkoon yëpp mu fay jàmbaar liggéey fa liggéey bu am solo ba ñibbisi ci réew mi teewul ba léegi lépp lu ñuy def ci yoon yi dan naan nan ko woo lépp lu ñuy def tamit ñi mu mënoo def dara te jiitaluñ ko ci daay muy daayira bu mag bi muy daayira kër sëñ Touba gi lu mu mën a doon tamit lu ñuy def ci réew mi euh, mu tam jëm si fii faw ñu woo ko mu jiite mu jiital ñu jiital ko ci kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant tamit nag sëñ ma fëri Ndiaye bu baax ak sëriñ Assane Diop ci soññee bi ndax kat suñ manee dara ñooma wax dëgg yàlla du noppi mukk ci jun soññi du noppi tamit di nuy wax kàddu yoo xamante ni day tax ñu gën a amaat pas-pas ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax ndawkat fu mu nekk génn bitim réew nga di ko soññ ci di ko liggéeyloo ngir jëmmi sëñ Tuubaa kooku mënu laa fay kon ñoom tamit ñu ngi ñaan yàlla suñu borom guddal seen fant dool yi seeni xéewal bu baax a baax a baax ci barke Seexul Xaddim asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw nuyoo bi nag ñu di ko tàbbalee ci sëriñ Mame Balla Mbàkke di ko ziyaara bu wax moom ak soxnaam di ziyaara sëriñ Mame Balla di siyaare waa mbokki Mali yëpp waaye ci biir loolu nag ñuy beral nuyoo sëriñ ma Mafari Ndiaye nga xam ne moo nekk coordonnateur ci liggéey bi ci bàyyi ci Afrique di nuyu sëriñ Assane ni nga ko waxee léegi nga xam ne coordonnateur la bu mag ci àdduna bépp di leen siyaara bu baax di wax ne liggéey bi nga xam ne moom ngeen doon liggéeyal sëriñ Tuubaa mu jëm si ci ndogu yi nga xam ne moom la ñuy def ci jumaa ji agsi na jot nañ ci des na leen ko defal ci liggéeyu Serigne Touba bi nañ leen ko ci daan defale di leen sant nag bu baax di leen gërëm ndax diirub bi ngeen tàbbee ci liggéey bi ba léegi gis nañ ne lépp lu lu jot rek yéene nga ca lépp lu jot rek seen taxawaay dana ca feeñ dana ca ràññi ko muy koor gi muy màggal gi muy gàmm gi muy yëpp rek kon nag jërë ngeen jëf yaakaar ji rek lañ amoon ci yéen ba tax nu bëggoon a ànd ak yéen ci liggéey bi yaakaar ji it ñe leen ci soñ soññ ba boole leen ci itam di sëriñ ma fari ak sëriñ Assane liggéey lii rek la jaakaaroon ci yenn moo tax ñu boole leen ci Pastef bi ngeen am ci liggéeyal seen Tuubaa it boobu lañ gisoon ci yéen ba tax ñu tànn leen ngir ngeen ànd ci liggéey bi Pastef foofu moo dolloon suñu yaakaar ci yenn gis nañ ko nag bu baax a baax a baax at mu ne yéen a ngi koy jëmmal ci jëf di ko jëmmal ci wax euh, sëriñ Mame Balla mi teew na fi ay at yu bare bare wax dëgg yàlla indi seen liggéey loolu nag day wane nag ne Euh, yaakaar jooju ñu amoon ci yéen mooy li nekk ci yéen ba léegi kon nag sëñ Mame Balla ñu ngi lay ñaan nga jottali ñu suñuy cant jottali ñu suñuy ngërëm ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Touba Mali yëpp waaye jottali ñu leen itam seenu soññee seenu soññee ndax ku ne ca waar dox rek la ñuy soññi kon nag ñu nga leen di soññ ñu gën a farlu ci liggéey Serigne Touba donte jamono naqari na nag jamono naqari na jafe-jafe yi bari na mettit yi bari na waaye mbirum sëriñ Touba xamul temps xamul xamul xamul jafe-jafe àdduna sëriñ Tuubaa wala si waaye yan day xus zamaan la sëriñ Tuubaa waxoon moom xat-xati jamono da koy teggi du jëm ci wetam mokk kon képp ku jëm jóg ngir liggéeyal ko rek xat jamono da lay teggi bokk na ci leen di musal di leen jàmmal ci jafe yooyu mooy liggéey bii ngeen di liggéeyal sëriñ Tuubaa kon nag na ci gën a farlu te gën cee góorgóorlu te xam day dox day dox seen diggante ak bépp jafe-jafe àdduna di dox seen ni muy doxee seen diggante ak bépp jafe-jafe àllaaxira kon nag yàlla na ñu yàlla defal jàmm te defal na ko yàlla na yàlla seral réew mi guy mu sedde na mu sedde woon wala nu ko gën a sedd te defal na ko ñun tam ci suñu réew yàlla defal leen xéewal yu yaatu euh, ñu mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa te defal na ko ci barke Seexul Xadiim ñi ngi leen di fàttaliku nag waxtu wu nekk di leen ñeewante lool di leen bàyyi xel ci tolluwaay bi bu baax baax a baax a baax a baax xam nañ ko bu baax a baax ñu ngi leen ñaanal it fii ci Serigne Touba suñu borom delloo si fa jàmm bu baax a baax a baax a baax ndax nit ku ne fam miin te nekk fa di fa fàggoo addi su sañoon jàmm rek moo fay xew waaye ku nekk itam fa sa mbokk nekk boo fa nekkut it mel na ne yaa fa te suñuy bokk fa nekk di suñuy bokki bi di suñuy àndandoo ci liggéeyub Serigne Touba bi kon duñ man lu may yéene leen jàmm yéene leen tawféex yéene leen itam euh, ñu am féexu mën a def liñ bëgg a def ci jàmm ak salaam te loolu li koy maye rek mooy jàmm kon jàmm jooju yàlla dellusiwaat ci réew mi te dellusi ci réew àdduna bépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax na it na seen xel dal te bu ñàkk yaakaar mukk ku ànd ak sëñ Tuubaa moom waxtu bu nekk xelam daa war a dal te bu mu ñàkk yaakaar mukk ndax faaw rek ndimbalu yàlla dana ñëw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.